ba dimanche passé structure moo tëgg kon Gaston Production musul jóg ci làmb waaye loolu tamit boo koy boo ko seetee boo xoolee loolu boo gisee loolu nga xam ne euh, Gaston li mu jaar Gaston fi mu jaar Gaston li mu def Gaston fi mu jaar ci làmb loolu dalay per xam xamal ne euh, koo xam ne la ci réew yi kenn mënutul dindi li mu def mm-hmm. ñaata xale la jële ci A yóbbu leen ba Z maa ngi lay jox ay exemple ay ay ñoo xam ne tey ku mel nii ñoom Yaxya Jóob Yékini fi mu jógeek ñoom fa ñu mujjee Tyson fu mu jógee moom ñu mujjee lu jiitu loolu génération ñoom Moustapha Gueye génération ñoom Ibou Ndafa génération ñoom Maam Njambaan ba xaw a laal tuuti am na tuuti génération ñoom Mbaye yoo xam ne pas ñoom Mbaye Gueye mais ay génération ñoom Mbaye Gueye ñoo xam ne na ñoom ñoom Mbaye Gueye ñoom Mamet Ali ñoom Alioune Seye ñoom ñëpp Gaston dafa contribuer ci ñoom ñooñu ñooy bàyyu xale yi di maami ñenn mbër yi kon ca maam ya la commencé di tëgg ba ci bàyyi ba ci nijaay yi ba ci seet ci tey mi ngi leen di tëgg kooku mooy Gaston Gaston nag boo koy natt ba natt ko gis nga booy xool euh, Baye Balla euh, mag ñi mu fekk ci làmb muy magi ménage yooyu gis nga ñooñu tey boo leen indiwaatoon ci làmb ji du ñu xàmmee sax làmb ji mag ñu amoon baat ay ménager ku mel ni Baye Yéri Jaxate tey dem na ku mel ni Baye Jibi Guèye dem na Baye Moustapha Diaw dem na euh, góor gi nga xam ne tey moo fi des ci mag ñooñu euh, mooy bàyyi Cheikh Diop à cent deux ans presque moo fi ne moo doon engagé manga ak góor gi Moot Ndour nga xam ne am na cent cinq et quelques ñi ci des yëpp dem nañu ñoom Jacques Diène ku ne xamoon na Jacques Diène ak Gaston kooku moom précurseur la woon ci làmb Gaston dafa dajale woon graine moo doon basam mu jox leen boppam Euh, grand place ménager yi mi ngi nekkoon ci diggu marché Tilène nga xam ne jaaykat yi yëpp nga fa woon ak li fa amoon yëpp ci mouvement fa lañ daan nekk la matin mu nekk fa ak paa yi fa lañ daan taxawalee combat yi da nga daan gis mbër yi ngeen di gis tey di champion nga gis mu ñëw ak kenn ñëw kilotam kilot kilot ñu mu ñuy wax ba ñu jox la combat xale yooyu tey ñooy dawal oto 30 millions yi 40 millions dans ce pays bombardier dafa bokk bu ñuy def analyse bu Bombardier dañu naan keroog bi Bombardier di mujj bëre ci la Gaston génn àdduna. Gaston moo indi moo indi Bombardier Dakar. Gaston moo indi Bombardier Dakar dëkk ko komba spécial. ak euh, Alaaji Ngeer. Gaston. waaw loolu bu ñu demee ba ba tey euh, Bombardier dernier combat de sa vie. Gaston gaañu ci tàkkusaan boobu. heureusement que xoolal le temps que ñuy soufflé combat bi ci lay gaañu. loolu lan la ce qui veut dire que symbole la. Gaston symbole la ci làmb mënutul deñ kon ak xale yi nga xam ne tey am na ci xale yoo xam ne oto yu njëkk dawal moo leen ko jox boole kook contrat kër yi ñu dëkk moo leen ko jox boole kook contrat am na ci waajuru mbër yoo xam ne moo leen yóbbu mag am na fi am na fi mbër yoo xam ne biñ leen bëggee toroxol bëgg a yàq seen carrière dafa futteeku wutal leen avocat fii ànd ak ñoom ci lépp amul dara luy dal waa lamb da Gaston tànkam loola du dëj du ga du dara xeebul dara waa lamb képp ku am problème contentieux da ci taxaw bu xew ci lépp ba ci kii fi jóge ci réew mi lan moo ko booleeg euh, euh, Gaston parce que président Ablaye Wade dafa convoqué président Macky Sall central mu dem mu dem taxaw ko foofu la seen ànd yàggee ba foofu daf ko yàgg dafa yàgg taxawu koo xam ne kii dañ leen néewal doole kooku mooy Gaston te ñun ñi ñëpp xam nañ loolu xam nañ loolu te it nit la koo xam ne boo gisee coow li xaw a bari mooy bu defee projet am da koy aar de A à Z. looloo tax parce que nit ñi aussi da ngay defar sa tool ñàkk ko ñu ruur ko te bëgg loon ko ruur tooram te nit ñi dañu dañu tàmm ruur tool ndax loo def ñu teg ci ñu teg ci baat loolu rek moo daal moo daal jikko te loolu jikkoy sang la loolu jikkoy ko am fit la jigéen ku bëgg réussir la ndax lii aju ci waam làmb nag ascenseur social la réew mi nañ ci bàyyi xel la république nañu bàyyi xel ci làmb bu ñu xamoon li làmba def ci kër yi bàyyi leen ma géew bi ngeen dem ci ci ci parking bi ñi nga xam ne bëriwuñu le dimanche ñaata la ñuy jëlee ci làmb pour ñëw mm-hmm. ñiy jaay foofu ñaata taabal la ñaata taabal taabal yooyu ñaata buntu kër la waaw fii ñuy def ci ci blouson mbër yi ñan ñoo koy defar 18 pour cent yi ñu ciy jële fu mu jëm du ci état bi ñaata litre essence ñooy takk centage bi jóge fa fu mu jëm du ci kii bi. koy téléphoné ba boo amee combat ak yéen ñi di liggéey ci téléphone pourcentage yi fu mu jëm du ci état du ci état bi connexion yi fa lañ ko jëndee duñu fi état kon làmb contribuer ci état bi mm-hmm. làmb day contribuer ci état bi ku defe ne da ku defe ne loolu dara état lamb état mooy namp ci làmb euh, dañuy luye arène bi dañu koy luye location fu mu jëm ministère des sports ministère fu mu nekk ci état bi kon nañu jàppale lamb je damay wax autorité yii maa ngi leen di ñaan ngir yàlla war a suuli bu fekkee ne rek jeunesse bi leen tax a jóg ak jàppale jeunesse pour ñu réussir lamb mi ngi ci yoon wi soxlaatuñ sax ku ñu kii waaye ku ñu puus rek la ñu soxla mm. ak ku ñu yiir ku ñu aar mm. ak képp koo xam ne kii bu ñu la tàllalee loxo nga ñëw wuy suñu ñu ànd ak yow liggéey réew mi loolu daal tey nag day bés boo xam ne bi sa fait l'occasion pour que ñu leeral yenn yi waaye daal maa ngi ñaan yàlla gasoo yàlla xare ko àjjana yàlla na ko yàlla dimbali lépp lu mu defoon ci nit lépp lu mu defoon ci doomu aadama lépp lu mu jàppale woon nit yàlla na ko yàlla fay ci barke Seydina Muhammad benn kàddu booy dénk euh, sa doom Makan Meng Makan man duma ko may dara xam na ko ndax baayam daf ñu ko dénk moo tax fu ma ko fekk ne ko defal lii defal lii defal lii am na yu bari ci suuf lañ koy wax maak moom pas plus tar que semaine passée dama ko koy wax dama naan ko lii warula la lii waroo ko def lii nangam lii nangam mayuma ko dara heureusement relève am na ndax préparer na ko ndax bi muy def retour am yéen ñëpp ci ngeen gën a miin ma makkan parce que booba da doon mottali si rek li nga xam ne mooy yéene yàlla daf lay préparer Gaston bàyyi woon na làmb mais après gis nga euh, sa sa sa ñoom papa Bécaye Euh, ñoom xaadim euh, ak ñu mel ni ñun topp ci di wax topp ci bu xam ne toog toog jaadootul ci la def retour am ak réew mi di ko di ko sollicité ci loolu loolu mooy retour am bu ñëw nag xale bi xam na ne moom xam na ne âge am man bokkoon naa ci ñu ko ne euh, ni nga daan demee à fond ci làmb bu ko demee te ajo baa ngi dugg si mais buy buy buy jël rythme bi sax du ko tey waaw loolu loolu loolu loolu loolu dal na Gaston kan nag ñu ngi koy ñaanal yàlla Euh, mu gën a muñ te xam ne tegu na ci yoon bi tegu na ci yoon bi tax euh, góor gi préparer na ko wax naa ko ko bu yàggul nee naa ko li mu daan sonn ci yéen yëpp tey tax tey jii yaa ko taxawu mënatul yaa ngi doxal li mu daan doxal ba pare delluwaat encore di def li nga xam ne lii mooy euh, bëgg-bëggam ci làmb kon yàlla na ko yàlla jàppale taxawu ko Baye Balla safe fait l'occasion maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen ñëpp ay précurseur lu làmb ngeen yéen ñëpp luy jëmee làmb kanam ngeen jëm tey ñu ñàkk bàyyi ñàkk mag ñàkk nijaay ñàkk koo xam ne kii miir bu mag daanu la ci làmb tey seen kàddu rek boo xam ne du bari ndax euh, dañuy ñaan yàlla yërëm ko te yeexanu waaye man mii taxaw di wax alaaji Basiru Caam Dogo bokk ci famille làmb Gaston mooy jëkk yóbbu France ci combat ki nga xam ni mooy Baboy ak Balla Gaye signature du contrat ba fa ko defee moom mbaa xam ngeen ni Gaston ku ragalan histoire la waaye boo bëggee daw dal ci kawam day daw dajeek yow waaye nag moom li mu doon ci àdduna def na ko ba mu jeex ndax nag Gaston dama koy wax ni ko ñetti ndoom ndombay tànk yi benn bu ci ne dal na la dañ naan Gaston Mbengue promoteur la waaye Gaston Mbengue laman la teeñ la tubaarkàlla macha allah. mi ngi dëkk ci diggante Kajoor ak Njàmbur Laman Teeñ bokk Bawol kon Gaston li lii muy def ak ni muy jëfe te kenn ku ci nekk ñun communicateurs yi ba ngay jóge mbàkk yeewal na law nag balaa bu dee xeetu teraanga Gaston bu la defalee teraanga dootoo seeti kenn kon Mbengue ñi ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jóge kii di sunu doom nag di makan di nit ko yàlla baaxal tànki baayam rek la roy daana ma ko tooñe daana ma wax naan ma yaag Bécaye xale yi ñoo leen di remplacer Pape Birima ak ki nga xam ne mooy Modou mbay waaye tubaarkàlla macha allah lu mu deful ci xeet teranga dafa di Gaston loo làmb da nga naan yàpp guddi la loo làmb danga daan naan maa ci gën a duufle waaye li mu def ci xeetu teranga Gaston làmbam sax bu guddee tëgg ñun communicateurs yi nga xam ne dañoo yàgg bokk ci làmb ñun dañuy bég kon yi woo mu daan defal yàlla na ko yàlla fekk ci biir bàmmeelam te yàlla xere ko àjjana yéen ñu ngi leen di gërëm ndax yéen a bi te dara ñaawul yal na yàlla guddal seen fan te def leen mag mag mu am ñam ci barke Seydina Muhammad jërëjëf jërëjëf